président nuyu naa baa Ba Jili maa ngi lay fay. ñu ngi sant yàlla bu baax. profité ci koor gi di la baalu àq bu baax di la baal di ñaan suñu borom boole ñu ngi lay baal di la baal yoo tamit di ñaan yàlla jéggal ñu. di profité ci occasion bi di baalu Sénégal yëpp àq. di leen baal àq. di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaan yàlla corona bi jóge fi. di ñaan yàlla yàlla def fi tawfeex def fi xéewal. waaw ci barke Mohamed. kër guy gi fekk la fi daanaka boole na mun naa ne staff équipe Mor Fadam bi yëpp ñu ngi fi euh, dajale gi ci ndogu daja bi lan la li jiitu mooy da ngeen di waaj daa am lu ngeen di waaj wala dangeen ngeen fee daje rek pour ndog non daje bi du dara lu dul def lu baax rek comme weeru koor lañ nekk. weeru bonus la boo defee lu baax dañ koy multiplier lu bari bari loolu moom moo waral moom bi mu amee xalaat bi bi mu ñu ci bi ñu ko waxee ñu ne ko loolu lu rafet la loolu moom comme yow borom tur euh, baax léeg lu mel nii sax nga koy def quoi dafay baax day baax ci yow quoi di seral xolu borom doomu aadama yi koñ bi nga dëkk saa boo amee combat da nga leen sonal xam nga nit ñi tànqal leen créer ay coow lu nekk kon tey bu nekkee ci weeru koor euh, génneel sax alal nga génn dugg ci kër yi jox leen ba pare nga togg def ay affaire defar ay ndog yu baax joxe ko loolu ci yow waaw parce que xam nga nitu nit nit koo xam ne moom ñëpp lay tudd moom ngay def yu baax yooyu moom wàññiwul dara quoi da lay xéewal la rek quoi Uh-huh. am na solo ñu ñu ñëw tuuti ci làmb euh, président mel ni fi mu toll ni bokk nga ci ñuy démarché moo gét combat loolu lan nga ma ci wax. loolu. lan nga ma ci wax. waaw dañ ci sant yàlla rek waaw xam nga moom wax dëgg yàlla yàlla boole nañu ñu ngi kay doxal ay combat di ñaan yàlla lépp lu ñu dox rek mu yomb te nooy ba pare am réussite loolu la ñuy ñaan yàlla rek parce que moom kuy dafa ñëw pour yokk làmb dafa ñëw pour yokk làmb dafa ñëw pour jubbantiwaat làmb su ma ko waxee nag c'est pas que moom mooy kii maanaam dafa ñëw pour teg benn système boo xam ni bi képp kuy amateur boo ko déggee di nga ci kontaan CNG bu ko déggee dina ci kontaan keneen ak keneen noonu parce que moom amateur la moom mbëri ñoo nekk tout le temps xam na làmb léegi nag li muy dégg ci groupe whatsapp yi gars yi di ko kaas yu demee noonu loolu moom moo tax mu ñëw jël ay responsabilité am génn ay moyens ni ni ni ko amateur yi bëggee noonu laay tëggee làmb waaw noonu laay tëggee. nees euh, Gora Euh, Malick Niang ban combat ngeen ci gën a bëgg. non nees Malick Niang lañ gën a bëgg. waaw dox nañ ko wax nañ ci liñ ci war a wax waxtaan waxtaan nañoo ak ménager yi waxtaan nañoo ak ñëpp instant bi ñu ngi toog di déglu waaw. ci kan la dëgëree fii. waaw xam nga rek loolu moom baal ma bàyyi rek waaw yow xam yaa ma gën a xam mbëri moom mooy loolu quoi nañ bàyyi rek nañ bàyyi mu sedd rek xam nga. waaw en tout daal dox nañ combat boobu noonu bëggoon nañ tamit nees góor a soog waaw mais euh, boobu moom mën naa la ci nees la yàqoo quoi. waaw mais Ness Malick ñaar bi moom euh, ñoom ñoom ñoom ñaar la ñuy déglu quoi. est-ce que du Ness dafa xeeb mooy may góor a Sock chance loolu moom c'est sûr. Mhm. Ness moo raw a Sock ci làmb da koy may chance bu ko jëlee. waaw da koy fay lu ko jaral mu jël ko bu ko bëggee jël mais su ko bëggul jël moom am na ci plein droit parce que Ness ci Sa Thiès la jugee. Mhm. Gora Sock ci Tyson 2 la jugee kon ñoom ñaar bokkuñu classe récréation moo leen boole mais comme dañ ne grand contre petit gis nañ Balla Gaye 2 jël ak fi mu toll gis nañ Balla Gaye jël Gris Bordeaux kon loolu certain bu ko neexoon mën na ko may chance mais nees moom moom mooy may chance waaw. ak yan combat ngeen di démarrer fi mu toll nii parce que ñu ci bari bëgg nañ combat retour Zos ak ki nga xamante ne mooy Diène Kaïré combat boobu yéen a dox wala doxoo leen. waaw Zos Diène Kaïré ñun ñoo ko njëkk a dox mën naan la mais Papa Diène Kaïré sama père Maysa euh, bi ma ci waxtaanee moom nee na Zos affaire bi yàqu quoi. ci ama neex. ama neex dafa xeeb nag de non xam naa dafa nekkul ci plan de carrière am rek ama neex champion la. yan combat ngeen bëggaat à part bëgg nañ guy gi Eumeu Sène bëgg nañ général bu Malika bu libéré bëgg nañ ko fils de Balla bu libéré bëgg nañ ko bëgg nañ euh, Tyson 2 bu di libéré bëgg nañ Franc bëgg nañ Sokh bëgg nañ Gamou Gueye bëgg nañ Pambaay numéro 2 bëgg nañ Baytine 2 bëgg nañ Eumeu Sène junior mbër yëpp ñun ñu ngi fi pour mbër yëpp. Garga Mbossé démarché ngeen ko. waaw euh, Garga Mbossé nag bu dee démarché nañ ko jaaruñu si man waaw mais pare nañ pour tëgg mbër yëpp waaw pare nañ pour tëgg mbër yëpp waaw. lan nga nga xamante ne ay mbër lañ nekk ci contrat euh, di cumuler li nga xamante ne mooy contrat bi ban xam-xam nga loolu moom dafay nekk loo xam ne da nga ciy waxtaan ak ki nga séqal ba pare su la joxee autorisation bu waxtaanee ba jubo su la neexee nga cumuler parce que bul fàttali dañoo jugee ci un boo xam ni corona moo fi nekkoon kenn bëriwul kon nag bu ñu commencé waatee bëre te làmb dafa bëri frais boo jëlee benn avance rek pour nga préparer ci day metti wala nga jël avance boo xam ne depuis daaw nga ko jël avant corona bi doo am loo préparé su boobaa nag boo waxtaanee ak sa promoteur promoteur bi soxla sa combat waxtaan ak moom buñ juboo ci loolu gisuma ci benn inconvénient quoi waaw mais nag war loo def loo xam ne ki nga seqal contrat si yëgu ko da nga war a wax ak moom ba mu ba mu leer ba mu leer su la su la ne ok nga waxaale après nga bëre parce que date yi moom fii ba la 29 août date yi moom jeex na ku la fi tëggaat rek bu la dugalul ci journée bu dee mbaru grand combat nga octobre nga jëm novembre kon loolu pourquoi pas boo mën a jël avance nga jël avance waa ci kaw rek ki nga ki nga xam moom nga seqal mu nangu waaw. ñoo lay jaajëfal bu baax président. ñu lay jaajëfal bu baax Badji Li ok.